sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha auzu billahi rahim barke borom Tuubaa mbokki fan yu tedd yi ñu toll di waajal bisub Serigne Touba Xaadim Rasul muy màggal bu njëkk gi ñu koy waajale na fépp ci senegal rawatina ci dëkk bu tedd bii di Touba rawatina ci penc mu tedd mi ñu nekk muy Darou Khoudoss muy bis bi nga xam ne nii ci la Serigne Touba Cheikhul Khadim tànnoon ñëw fii ci Touba dëkkaale ak boromam bis boobu nag mu joxoon ay dénkaane yu am solo Cheikh Mouhamadou Moustapha bi ko jëkk a wutu ci kanam murit yi mu defe ko na ko Serigne Touba bëggee bis boobu nag nekk bis boo xam ne nii dafa làmboo ay njëriñ xam ngeen ne bañ ko tàmbalee ak léegi tànn yenn ci woroomi xam-xam yi nekk fii ci biir Daaru Xuddoos gannaaw loolu itam ñu dem ci cheikh si wala yenn ci cheikh si nga xam ne nii dañoo aju ci kër Cheikh Modou Moustapha waaye fas ne ànd ak yeneen ci yeneen i programme loolu nag moo tax incha allah xam ngeen ne ëllëg ci la ñu war a amal exposition bu mag bi nga xam ne ni ren jii maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko dippee maam Cheikh Ibrahima Fall nag buñ ko tuddee exposition boo xam ne ni dañ ci fàttaliku Serigne Touba Cheikhoul Khadim def nañ la ñu war def loolu nag moo tax xam ngeen ne Cheikh Ibra euh, ni ñu koy defee wala boo gëstoo li nga xam ne moo di taarixam wax nañ moom wax nañ wa taarixam yaatu na wax nañ ci euh, ab juddoom wax nañ ci digganteem ak Serigne Touba waaye am na lenn loo xam ne nii lu Serigne Tou lu Cheikh Ibrahima Fall euh, def digganteem ak Serigne bi wala taarix boo xamante ni am na digganteem ak Serigne bi te laal Touba bi. loolu nag yaakaar naa ne bu fekkee mas nañ koo dégg itam xam naa bëriwul mu nekk lu exceptionnel loo xam ne nii. gan gi nga xam ne ni moom la ñu dalal muy sëñ Mouhamed loo moo ñu fas yéene indil ay tomb yu am solo diggante Cheikh Ibrahima Fall ak euh, ki nga xam ne ni moo di nasaraan yi kon dañ koy jox ki nga euh, kàddu gi mu nuyoo ñu door ñëw nag ci laaj yi ak tontu yi kon sëñ Mouhamed bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah sang bi ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeurs yi euh, di leen jaajëfal ci farlu gi waaye itam. ak mat gi ndax euh, histoire dafa baaxoo ñi ko soxlawoo xam def yitte ngir ñu xam ko euh, ci la ñëpp di jariñoo euh, kon lu am solo la nag ndax maam Cheikh day géej te fi nga ko mën a natt rek léegi mooy fi ñëpp jaaxlee fa la maam Cheikh tàmbalee fu ñëpp jaaxlee mooy fan Euh, violence dafa face aduna, nyak jam, ak jalgati face aduna. mam Cheikh Ibra ñëw wax tënk baatu jam ak xéewal jàmm xéewal nag bis buñ ko teggatee mooy clé bi nga xam ne tax harmonie ci mu am ndax kenn ku ne da ngay doxe code de la paix la non violence et la recherche des bonnes relations kon Cheikh Ibrahima tënkam boobu doy na aw bind ñëpp xaj na sax lii nuy waxtaane du ñàkk dana am benn volontaire bu mu ci ubbi boo xam ne ñàkkut ne bariwut lu muy ubbiku ndax sañut sañee suta wax ne mu a ubbeeku kon ñu delloo la kàddu gi kon Serigne Mohamed Lo jëf ci nuyoo yi ak introduction bu am solo boobu kon dañuy daal di engagé rek li nga xam ne moo di euh, question bu njëkk bi mu mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall am na ay baati seede wala ay mbind wala ay wax yoo xamante ni nii euh, tubaab bi révélé na ko ci moom waaye du moom moo ko sulli ñoom tubaab yi ñoom ñoo ko bindal seen bopp loolu bu ñu ko toppee yaatu na loolu waaye jombul ne am na yoo ci tànn tey bëgguñu koo baaxee lan nga ñu war a mën a baaxee ci côté boobu sëriñ bi. maam Cheikh Ibrahima danaa la ci tànnal rek ñett donte ko nag ab jóor la nag. Mm-hmm. boo xam ne moom ay waxtuy waxtu sax du ko jeexal te loolu. ku dem archive nationale euh, di nga ko fa fekk wala bokk yi ci ëpp ndax xam nga secret archive mooy li ci ëpp duñ ko classé te loolu da nga ko dégg ci sama leeral dana am référence yu ma tudd dama lay wax ne place ba waaye dama naan boo demee doo ko fa fekk ndax archive non classé la NC loolu dafay am bi ma la ci njëkk a tànnal ab ab ab jaxase lay doon maanaam àdduna li koy lijjanti mooy li fi indi woon tubaab bi ndax tubaab bi àdduna la bëgg mhm.

nga xamné ni le chercheur au CNRS euh, Christian Colomb moko bind ma ngay wax ci page 168 wax ni euh, mi ngi bind wax né exemple bi mu ciy joxe mooy Ndande Fall xam nga ndand Fall mom ñepp xam nañ ne moy pays la ci pays mam Cheikh Ibrahima Fall yi ben exemple la joxé mu né nanum ataya, wacc na fa. ci ñetti at fukk yu ne juróom-ñeenteel ba banañ ko fukk yu ne juróom-ñeentee banañ ko te xam nga maison de commerce yi yaxantu boobu ci lañu daan yóbboo liñ daan amakus néew ci koom waaye bi maam Cheikh Ibra taxawee ci liggéey boobu ànd ko ak donga yi te rapport bi dana ko feeñal ci kanam maison de commerce yi teg nañu jàngat gis ne ñetti at yi weesu seen client yi nu amoon. bu dee fukk juróom-ñeent yëpp bàyyi nan loolu nag doon aw tiis lool ci ñoom mu wax ne su fekkoon ne nag loolu xayma nañ ko ñu seet yeneen province yi nekk ci yoon wi saxaar gi di jaar kon daanaka moom day wax ne euh, euh, noonu la ñuy tuddee la secte mouride indil na euh, pertaange ci commerce bi loo xam ne dina jege daanaka cent mille personnes yoo xam ne dañ daan jënd te bàyyi seen jënd moomee loolu nag euh, ci nasaraan nga xam ne yaxantu ak roppat par benn benn li économie bi di maigre maigre lu ko fekk ci xol la waaye dafa am leneen lu mu ca teg mu ne dajale gi nga xam ne nii dana dajaloo ci loxo yi seex si xaalis yu bari yoo xam ne nii mu ngi jóge ci seen taalibe yi ni ñuy liggéey kon ku wax seex buy liggéey moom sa xel dana jàpp maam Cheikh dina jàpp keneen waaye da nga jëkk ci maam Cheikh Ibrahima ndax du lu ñu ko tànnal de tubaab yi ñooy defi exemple ñoom ñi nga xam ne wet googu ku ci yëngu ñoom ngay dimbali ñoo wax li ca Cheikh Ibra am ak nam ko ca amee ak xereñ gam ca amoon ak densité ba mu ca amoon te lu mel nii moo ko tax mu wax ne nag tey jii imaginer leen loolu yi Cheikh Ibra def ak yeneen seex yi mu bokkal sëriñ bi bu nu àndandoo woon te ci ñoom dong nag la dépendre ñu waxtaan daa di ne gerte gi léegi nun nooy fixer prix bi au lieu que dañ koy jaayee juróomi dërëm maison de commerce di ko jënd ñoom ñuy wax ne fukk lañ koy jëndee wala kenn dootu jaay ñu wax ne ñii bu nu àndoon doon benn jël seen kàddu teg ko ci dara sunu maison de commerce yi ñoo koy passé à l'index loolu nag damaa jàpp ne cib économiste wala ci ab financier ak fa jamono tollu woon xam na bu baax. porté bi nga xam ne nii maam Cheikh Ibrahima amoon na ko te loolee muy foqar ci loxoy tubaab yi ci sëriñ bi ak donga yi rek la dellusiwaat kon loolu mooy témoignage bu njëkk bi. beneen bi ci des euh, dox jamono dox na lu yàgg ndax boo demee dossier euh, ci ci ci archive nationale bi Saint-Louis am na fa dossier bu ñuy wax dossier maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye nag lii ca lii ca nekk nii moom classé wuñ ko fii xañ na kon dossier yi ci France wala ci Dakar lañ ko classé euh, mu ngi wax ne benn commissaire de police bu tudd Cazenave bu nekkoon Saint-Louis moo bind commandant de cercle bi euh, euh, di ko wax ne maam Cheikh Ibra Fall day ñëw Saint-Louis lu bari te bu dikkee dana dem ca kilifa ya dana fa yendu ay bis ba mu mat sëkk leg leg suba cuy la fay ñew te guddi gi dana magat lol te du fa joge mu ne nag saa yu ay election jubee ñom ñépp dañuy andando sakku ko ay ndimmal ngir influence bu am ci influence ci politique bu Saint-Louis nee nak ci wéccax ndiko ak lolou nit ñu kawé ñoñé ci seen wirgo wan yor ñom dañuy intervenir ci mom manam di wutal la soxla ci gouvernement local bi nga xamné manam dal Cheikh Ibra kon du dem dara ca ñoom waaye lu mu bëgg am na fu muy jaar foo xam ne ñam fay waxal baat ak tontu lay doon te ñooña xam nañ la muy doon ci moom ñoom moom it xam na lu ñuy doon ci ñoom kon ñaara ngi noonu ci maam Cheikh Ibra yoo xam ne benn bu ca nekk mënut ñàkk waaye nag mu des beneen boo xam ne bu rëy la muy maam Cheikh Ibra yemutoon ci maison de commerce yi kese waaye daf daan jëflanteeg ak personnalité politique yi ak avocat yi gën a mag ndax ñàkkut ne am na ay liggéey yu leen daan jox kon ci point boobu témoignage bi foofu laa ci yem delloo la kàddu gi. jërëjëf euh, jëwriñ euh, yaakaar naa ne euh, ni ñu ko waxee ci njàlbeen rek noonu la demee muy histoire boo xamante ni ci source yu wér nga ko sukkandiku. tubaab yi nga xam ne nii comme ni nga ko waxee ci au début benn objectif wala bokk na ci objectif yi leen indi woon en Afrique particulièrement au Sénégal. ñëw jëriñoo suñu économie donc bu ñëwee jëriñoo économie bi donc lépp loo xam ne ni peut-être wala képp koo xam ne ni yaa ngi jëf wala yaa ngi am melokaan woo xam ne danga leen di gàllankoor danañ la bàyyi xel maam Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci te li ko ko may mooy xitma bi moo tax ñu def témoignage yooy yu am solo yooyu maanaam ci moom deuxième point bi nag wax wax nañ ko léegi euh, wala annoncé nañ ko léegi muy euh, Serigne Touba xa dem ku ne xam na ne li ëpp ci ak dundam dafa nekkoon ci loxoy tubaab yi ci ay tuuma ak ak togn rek lañ ko lañ ko tegan ba tax ñu accuser ko ci wala ba tax ñu tek ko loxo ci walum euh, Zaire ba déporter ko fa nga xamné ni modi di euh, euh, Gabon lu mat presque juroom ñetti at waye dir bobu yépp ndax mam Cheikh Ibrahima Fall dafa croiser won ay bras wala amna ay jëfleunte yu doon def rien que serigne bi wat te loolu mu teg ko ci ay euh, processus administratif boo xam ne nii jombul ne am na loo ci mën a leeral jël nga ci kaaw kenn rek koo xam ne nii peut-être dossier am euh, jaxasoo na ci wala dossier tuddu tudd nañ ko ci muy le cadre fils euh, xam naa ne dañ lay bàyyi nga développé côté boobu yaa ñu ciy gën a kii incha allah. maam Cheikh Ibra yemutoon ci lépp sax xitma la waaye fi sëriñ bi war a dem lépp lu fa war a yegg maam Cheikh Ibra dana fa jiitu. dana xool loola waajal ko ab porte de sortie te loolu ñu bari wax nañ ne maam Cheikh Ibra jiitu na saint wi lu yàgg sëriñ bi ñu door ko faa woo. moo tax keroog bi bato bi costé sëriñ bi wàcc murit yi daanu nañu wax nanu lu ne jàmb nañu daqaar def nañu lu ne waaye déggunu benn tubaab bu yëngu loola liggéeyu maam Cheikh Ibra la mu wax nag ne ki def loolu jëfandikoowul daray baatin mm-hmm. te yor na ko te xam na li sëriñ bi wuti woon mm-hmm. xam na fa mu ko jaayante xam na fa mu ko yeew mm-hmm. waaye mu xam ne comme ñoom ñaar ñooy dox ca loola tubaab yi doxunu ci loolu mu bàyyeeg sëriñ ba la muy dox lam ca am moom mu jox ko sëñ bi dem ci li tubaab yi am ëppale leen ci woo leen ci neexal leen am la mu soxla dellu siwaat bàyyi leen ñu dem waaye nag sëriñ bi ba ñu dikkee nag ne ko da ngay ñibbi si dafa wax ne man bëggagumaa ñibbi muy beneen négociation moo tax loolu wolofal woowu sëñ Moussa yi wax ne ba ñuy signaloo sëriñ bi sëriñ bi ne leen indi leen xalima ak daaju musta bind leneen mu signé ci loolu sëriñ bi jël xalimaam defuk asar tomb ca digg ba jël xalima ji ak daa ji ne ku xare da ngay jàpp jaam mu ne bisub keroog la nocci mbóotum nasaraan wax ne seeni doom danañ jóge seenum réew si ci noonu njabootam dana jóge fii dem foofu te ñu leen di teral te tey jii Touba yi am ci biir àdduna foo dem yaa ngi fay gis Touba nangam Touba Chicago Touba New York Touba Chine Touba Union soviétique Touba Russie Touba nangam ak i nangam loola ci liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall la. kon daal pour bañ a guddal ndax mën naa gudd lool loolu mooy procès bi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall de bout en bout moo ko xalaat moo ko nas moo tiré les ficelles ba mu ca ñibbisee itam. Carpo nam ko waxee woon noonu la ko def 1902 moo falu Saint-Louis Carpo moom mu tàggoowul ak sëriñ bi ba bi nu ko yóbboo gànnaar maam Cheikh Ibrahima di def nam doon def Carpo singali tubaab yi ne walaa léegi picc si ba ñu delloo siwaat ko muy fexe ba mu dem ca yéen ba mu demee ca yéen maam Cheikh Ibrahima nekkaat ca moo Carpo ñuy fexe ba sëriñ bi ñibbi si njaareem te fekk na sëriñ bi waxoon na ne bu ñu xamoon la ñu ma dencal njaareem kon tubaab yi duñu wax ci jëm ca waaye loola loo ci rëdd lu ne mm. da nga ci rëdd daale maam Cheikh Ibra te ci taalibe dong nag la ko jënde soxlawu ca leneen bu bëggoon ku ko wax kon heure bi waxoon nañ ko ba noppi mm-hmm. waaye ba mu ko defee la ko wanoon ginnaaw ndax jëf mm-hmm. boo paree weesu bu ñu fàtte ne la ma introduire woon moom laay conclure mm-hmm. jàmm ak xéewal la daan wax jàmm ak xéewal nag mooy non violence non violence fu mu am jàmm rek moo fay am fu jàmm am mhm. développement moo fay am fu développement am nit ñi danañ tam tal seen diine mhm. te ku tal sa diine doo talati dara lu yàqu wala lu yàq foofu la ñuy taxaw lu mbokk mi jërëjëf sëriñ Mouhamed Lo yaakaar naa ne ñi nga xam ne nii dañ doon euh, seetaan ñuy seetaan fu ñu mën a nekk yaakaar naa doon topp waxtaan wi ci njaalbeen ga ak léegi mën nañoo jëlaat bind bu bees tàq ci taarixu ki nga xam ne nii moo di maam Cheikh Ibrahima Fall digganteem ak Serigne Touba dafa fës ci zahir fës ci baatin waaye euh, témoignage wala source yi nga xam ne ni indi nga ko wane na ne maam Cheikh fal Fall la woon à cent pour cent kon yaakaar naa ne ba tey it lancé nga defi ñi nga xam ne nii dañuy nettali taarix ndax da ciy bokk lépp looy nettali ak lu mën a doon wala lépp looy biral nga indi source ba. te léegi gis nañ ne loolu tuburanke na lool ci ñi nga xam ne ni dañuy nettali surtout nag ñi nga xam ne dañuy nettali diggante sëriñ bi ak ñi ko toppan rawatina maam Cheikh Ibrahima euh, ba ci euh, suba nga xam ne nii war nañu def euh, benn exposition bu am solo tuddee ko maam Cheikh Ibrahima kon yàlla na ñu ñëw ci maam Cheikh Ibrahima moo doonoon kan maam Cheikh Ibrahima Fall digganteem ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ci anam yu nekk waaye anam bi mu ci tàmm tànn moom c'est tellement exception exceptionnel ba nga xam ne nii Euh, yaakaar naa ne euh, képp ko seetaan rek mën nga cee jàngate lu bëree bëri bëri kon euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ni ñu ngi doon seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna di leen ñaanal màggalug jàmm di màggal goo xam ne ni lépp lu ci sëriñ bi dër rek yàlla nañ ko boole ku ñëw ak ku am yéene ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te faale ka wuy seek su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaa ña daawoote ña daawaate Moustapha